قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين It's alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin bi alihi wa sahbihi thawir diwaani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi tënku ci aaya jooji nga xam ne ku nekk xam na ne ci la yoonu murid tëdd muy laa yasbiquunahu bil qawl wa hum bi amrihi yaamaluun lu nu du nu jiitu sëriñ bi ci dara waaye lu nu sëriñ bi digal duñ ci fas yéene desal dara loolu kon mooy yoonu murit ba waral tey suñ jataay bii ñu fas ko yéene jëfe ci kaw ndigalal cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom xaadimu rasul ñu ci dalal kilifa yu tedd yi door a yegg si léegi sëriñ Mouhamadou Lamine Baara nag yàlla noo ngi dalal kilifa yi fi teew yegsi fi léegi di kilifay barab bi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nag fonk gum fonk ndigal lii nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo ko teg ci loxoom moo tax mu yëkkati ci xalim boppam bind bayaan bi ak lépp lu ci aju ne naa ko ko jàllaleel ci kaw ndigalam loolu kon mooy li nga xam ne moom lan fa si yéenee wéyal nii insha allahu taala al karim muy wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xadrata saadatil kiram سيادة شهماء الدين البررة إخوتنا الأعزاء محشر الإخوة والأخوات الذين شرفونا بحضور هذه الحفلة حفلة افتتاح هذا المسجد الذي هو بيت من بيوت adina allahu an turfaa wa yuskara fi hasmuh fi hasihi albuqaati allati hiya buqaatun ariqatun fi ddiini wa fi hubbi alqur'ani wa taallumihi wa taalimihi fa inni ayyuha saadatu alkiram bismi sayd الشيخ محمد المنتقى المكي الخليفة العام للطريقة المريدية وباسم السيد الشيخ سيدي المكي خليفة الشيخ عبد الأحد المكي وباسم إخواني الأكابر الحاضرين وباسم أهل تشاوين كلهم كبيرهم وصغيرهم uqaddimu taxiyaati wa tashakkuraati wa taxiyaati wa tashakkuraati ahli haasa albalad wa tashakkuraati ahli haasihi albalada ila kaafati alxaadirina allasiina shahiduu haasihi alxafla bima takallafu min anaa'in wa mashaqa wa uxassisu taxiyatin tayiba li saa'iri shaxsiyaati al islaamiyati alxaadirati wa suamaa il aadiyin wa li saa'iri ahaali al qura al mujaawira allasiina yudcawna bismi ahlu xurwi wa hum maa ahli caaween usratun waahida wa lil aalaafi wal aalaafi min jiiraanihim allazina haajaru min makaanihim wa jaawaruuna fi hada almakan ijaabatan li daawati cheykhina a cheykh ahmad alxadim alayhi akbaru ridwanu alxadim wa yasurruni bada dalika ayuha saada an aktuba bi qalami awala bayaanin yuqra'u fi hada almasjid wa atlubu min alxaadirina an yatafaddalu bi duaai lil ajdaadi alkiram sukkaani haatha almakan allazina sabaquuna bil iman wa karrasu xayaatahum li xidmati alislaam wal intinaa'i bil qur'aani taalluman wa taaliman intinaa'an baalixa wa atlubu duhaa aydan li warasatihim allazina salaku maslakahum wa adaw azwahum wa in lam yudrik addaalihu sawa addalih wa bi fadli juhudihim wa xusni xiyaamihim irtafaa haatha almasjid fa jasaahum allahu an alislaami xayra wa kadalika jamiu almutabarrihin allazina anfaqu amwaalahum fi haza almasjid ibtiqaa mardatillah wallahu alimun bima yafaluun wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum wa ma tunfiquuna illa ibtiqaa wajhillah wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuun وموضوع البيان أيها السادة لا يتناول إلا العز على الصلاة والاجتهاد في إقامتها وأدائها في أوقاتها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لمواقيتها wa qaala sallallahu alayhi wa sallam alaa adullukum alaa maa yamxu llaahu bihi alxataaya wa yarfaxu bihi darajaat qaalu balaa yaa rasuulallah qaal isbaaqul wuduu'i alal makaarihi wa kasratul xutaa ilal masaajid wa intisaaru salaati ba'da salaa fa daalikum ribaat fa dalikum ribaat fa dalikum ribaat wa qaala sallallahu alayhi wa sallam law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu minhu kulla yawmin xamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qaalu laa yabqa min daranihi shay qaala fa dalika mislu salawaati alxams yamxu llaahu bihinna alxataaya muttafaqun alayhi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam law yaclamu nnaasu maa fi nnidaai wa safi alawal tumma lam yajidu illa an yastahmihu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi walaw yaclamuuna maa fi tahjiiri laa yasbaqu laa lastabaqu ilayhi walaw ya'lamuuna maa fi l-xatamati wa subhi la atawhuma walaw habwa wa yaqulu rabbu sallallahu alayhi wa yaqulu rabbu subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar walaw lam yakun walaw lam yakun lis salati fadilatun illa nahyuha anil fahsaa'i wal munkar lakafa bi dalika fadila fa inna alfahsaa wal munkar laysa illa min alsheytaani irrajim ahadana allahu minhu yaa ayuha alladina aamanu laa tattabicu xutuwaati sheytaan wa man yattabic xutuwaati sheytaan fa innahu yaamuru bilfahsaai wal munkar wa idan fa alayna ayuha al ixwan an nuwalliya alsalaata ihtimaman kabira wa an la natahawuna biha wa kama ihtamamna bi binaa'i haasa almasjidi wa tasyiidi wa tasyiini fa alayna an nahtamma bi taamiiri wa taamiiruhu bi iqaami salawaati alxams fiih wa iqaamatil jumaa wa yanbaqi an laa yataxallafa ahadun ahaduna xanil xuduuri illa li usrin saxiix li qawlihi taala yaa ayyuha alladina aamanu ida nuudiya lissalaat min yowmi aljumaa fasaaw ila dikrillah wa darul bay' dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun wal nuqaddim ayyuhal ixwaan ihtimaamana bis salaati ala ihtimaamina bil umuuri dunyawiyya allati laa yaqdaa ahadun minna lubaanatahu minha walantaha arabun illa ila arabin wa inna salaaha tilkumul umuura bi salaahi salaah faqad qaala sayxuna ahmadul xadiim alayhi ridwaan albaaqi alqadim man saxalat hu salaatu an il asiyaa intafaha biha wa bil asiyaa wa man saxalathu illa illa asiyaau an ilsalaa falaa yantafihu biha wala yantafihu bil asiyaa wa inni la atadarrahu ila allahi subhanahu wa taala wa adhuuhu liman banaw haasal binaa wa liman amarahum bi binaa'i wa li jamii man aanahum ala binaa'i wa an yusbita fiihi jamaatan tuqiimu salawaati alxamsi daba kama qaala sayxu alxadim wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim الصلوات الخمس دأبا يا حكيم وأشكر الحاضرين جميعا وأدعو من الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بالستر والمغفرة والرضوان وأخص أهل تشاوين وأهل قرب جميعا بشكر جسيل فقد شاء الله أن جعلني منهم وجعلهم أقاربي ولكنهم باعوا الخرابة wal uxuwata bi iradatin saadiqa wa hakkamuuni fi anfusihim wa fi amwalihim wa awlaadihim tumma laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima almumid li ahli limaani bi imaanihim aya imdaad wa faraa minhu niaman la tanxasiru wala tadxulu taxta acdaad gaayatu maxsuulaatiha alfawzu bilxuluudi fi ljinaani wannadaru ila wajhi macbuudi alhibaad wa salla wa sallama ala xayri munaadin li haadihi saadaati naada sayidina muhammadin alladi yashadu man labba dahwatahu wa yabuuru man xaalafahu inaada wa ala aalihi wa saxbihi almuwaddixiina litariq liman jaa bahdahum min ahli tawfiq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 dahaakum biha ila hadratihi li yukrimakum wahdaru min tadyihiha fa inna fi tadyihi hada taarrudan li halaaki mudiihiha wa man qaama biha ala sunnati rasulihi alkarim ajaarahu min azaabi naari aljahim wa ahalla lahu ridwaanahu fi jannati annaim wa ridwaanu min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alazim laa siyama haasihi salawaatu allati tud'awna laha fahabuha akbara min axawaatiha wa ajallaha li anna maqaamaha fi lcibadat maqaamu rasi fi acdaai zat fafarriquu laha alquluba maxalla nadari rab wa taxiruu laha siyaaba wal ajsaada tafuuzu bilqabuli walqurb inna salaata tanha an ilfaxshaai walmunkar wala dicrullahi akbar fi lxadis buniya alislaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaai zaka wa xaji lbeyt wa sawmi ramadan yaxfirullahu li wa lakum wa lijamiikum alhamdulillahi almahmuudi fi ardihi wa samaa'ihi المذكور فيهما بالجم من نهمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنصر الحق وطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهاتل وعلى آله وصحبه الذين سيروا بيد الشرك شر عاتل الذين بذلوا لدين حقه بلا مثل ماتل أما بعد أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وسلة لربكم وردائه توحيده وإدامة شكره وثنائه وزيانة ودائه وإقامة شرائه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارحها المرضية في كل بكرة وكل عشية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوان aw bi muqaabalati baxdikum baxdan bi zulmi wa toxyaan yaa ayuha allazina amanu laa tattabihu xutuwaati seytaan wa yattabi xutuwaati seytaani fa innahu yaamuru bilfaxsaai wal munkar bil xadiis laa yuminu ahadukum xataa yuxiba li axiihi maa yuxibu li nafsi waffaqana allahu wa iyaakum li taaxati wa atamma taqsiranaa bi xafihi wa xilmihi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 in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa al-aziizu al-xakiim daalika fadlullaahi yutiihi man yashaa wallaahu zul fadli al-aziim masalu llaziina xummilu tawraata summa lam yaxmiluuhaa kamasali al-xamaari yaxmilu asfaaran bi'sa masalu al-qawmi allaziina kazzabuu bi aayaati llaah wallaahu laa yahdi al-qawma az-zaalimiin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 yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljumaati fasaw ila dikrillahi wa salu lbay'a zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun fa ida qudiyat alsalaatu fantasiruu fi lardi wabtaxuu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة allahu xayru raasiqin allahu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 laa yusminu wa laa yuxnii min juu' wujuuhun yawma'izin naa'imatun li sa'yihaa raadiyatun fii jannatin 'aaliya laa tasma'u fiihaa laagwan fiihaa 'aynun jaariyatun fiihaa sururun marfuu'atun wa akwaabun mawduu'atun wa namaariqu masfuufatun wa zaraabiyu mabsuusatun afalaa yanzuruuna ilal ibili kayfa xuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibaali kayfa nusibat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 السلام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 والله خير الرازقين ci bis bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal xalifa général des mu yàgg fi tey waaye di ñaanal Serigne Sidil Abdoul Ahad mu yàgg fi tey ak njabootu Serigne Abdoul Ahad gépp di sant yàlla bu baax a baax baax di balu ak mboolem jullit yi fi teew tey di leen baal ak di leen siyaare di leen ndokkeel di leen sant ci teewaay bi ñu teew ci bisu lislaam bu tedd bu mag bi di kàddu gi nag lépp ñu ngi koy wax ci ndigalal Serigne Baara Mbacke bu Serigne Abdou mi nga xam ne mooy mbokk ci dëkk bi di Serigne ci waa dëkk bi am ndigal ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha mu jox ko ndigal mu taxawu lii waaye mu am ndigal ci ki jawrinam Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad mu jox ko ndigal mboolem njabootu Serigne Abdou Lahad gi fi teew tey teew nañ ci ci ànd ak moom bis bi ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yal na yàlla guddal seen fal te seen ter di sant yàlla ndax barab bu mel nii ñu taxaw liggéeyal fa lislaam liggéey bu toll nii loolu doy na ak cant ndax barab bii barab bu kiimaane la ndax fii la Souleymane Sow joge di jiite ji Mbàkke Xewar moo nekkoon imaamu Mbàkke Xewar weeru zahru Ramadan muy jiite naafila Mbàkke Xewar di ko def di ko def ba lu jamono yu yàgg fii barab bii Serigne Touba Xaadimu Rasuul yebal na fi Cheikh Ibra Fall mu ñëw fii takk fi kër juróom fukki mètre. takkal fi ay néeg Serigne Souleymane Saaw. Serigne Touba wax ko ne ko. jëmm jooju ku seral xorom. soñ borom texeel na la addina ak àllaaxira kon barab bi yàgg naa nekk ci lislaam yàgg naa tedd yàgg nañ ci lislaam kon suñu fi defee lu mel nii tey. muy ndamal lislaam te toll nii mel nii. julit yii daje fi. njaboot gi nekk fi di ko dundal. téye maintenir loola. ndono la ba réerul. ba def lu muy nii tey kon li ñu mën a def mooy sant njaboot gi di leen gërëm di leen ñaanal ndax tey jii mm-hmm. bu mag ñi dekki woon mm-hmm. wala ñu yëg yëg yëg ci li fi xew mm-hmm. seen xol dana sedd kon ñoo ngi sant mboolem ko fi teew